الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ca yeneen tamba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wane ni moom dong subhanahu moo yeyoo ñu koy jaamu nan koy jaamoo kenn dong yeyoo jàngale ko mu yeneen tamba sallallahu alayhi wa sallam suñu daje ak yéen tey mooy fàttaliwaat lan mooy taxawaayu lislaam ci ay woy ak musique lu jiitu mbokk fokk yow jullit nga xam ni suñu borom day dañoo bind indi ñu ci kaw suuf ci benn mission boo xam ni da koo tëral leeral ko binduma leen lu dul ngir ngeen jaamuma loolee bu dee ne def nañ ko lépp nag luñ bëgg ci ab noos ak bànneexu buñ demee àllaaxira dañ ko fa fekk ci àjjanaam ya yal na yàlla defal ñu ko waaye borom boobu sant ñu ñu jaamu ko bokk na ci loo xam ne gërëm na ko ay jaamam bëgg ko di ko fàttaliku ko di ko tudd waaye itamit bañ na ci ñun lépp loo xamee ni nii day dox suñu digganteeg loolu ca keroog ba mu ñuy araamalal sàngara ak carte bokk na la mu waxoon seytaane day daa bëgg a jaare ci sàngara ak carte daa di dox seen digganteeg ngeen di fàttaliku ko seen boroom subhanahu wa taala dox seen digganteeg ngeen di mën a julli ca waxtu ya mbokk jullit suñu boroom leeral na nañu yoonu njub ca loolu ngireen ñu topp ko mu leeral ci ñun yoonu cànkute ngireen ñu moytu ko yeneen tam ba gën koo ja laay ñi ci biir gën jaa laayi biir won ñi ci misaal ci dundam nga won ñi ci misaal ca wootem ba loolu moo tax nga la wayu julit xamal ne bokk na lu gën a mën a fekk doomu aadama bi bam fàtte boroomam fàtte tudd boroomam mooy musique yi nga xam ni dafa tasaaroo tey ci kaw suuf woy yi nga xam ni daa tasaaroo tey ci kaw suuf suñ maam yi day amoon na ci ñoo xam ne dëkk yañ dëkkee woon lépp lu jëm ci am tëgg wala am fecc dañ naan kenn du ko def ci pénc mi ña dëkkee woon ca dëkk yu mag ya nga xam ne mënuñoo réglé penc mi it fexe woon nañ ba seen kër tabakat du fa dugg xalamkat du fa dugg kenn na ko yor ay caaxaan du dugg seeni kër waaye mbokk jamono yi tey mboolem kër julit ñi lu dul ña yàlla yërëm orchestre yaa nga ca biir kër ga di musique butéel butéel jigéen ñu ban ñaag seeni way ñu ban yaag góor ñu ban ña ña nga ca biir kër ya di musique di sëcc di sàccu njaboot yépp boobu toog di leen seetaan lii mooy nattu bi ñu yàlla subhanahu wa taala nattoo tey la nga xam ne gën naa yokk tooyaayu ban ba mooy kilifa yi diine ya waroon a tere musique boobee kilifa yooyee les médias yi di génne ñu jël musiciens yooyu taf leen ci seen wet ànd ak ñoom di rey ànd ak ñoom di leen tagg am na ñu ca yegg ba ne sax musique yooyu ñuy musique loolu moo leen di daaneel inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lii mbokk bu dee dañ koo gis xale yi ñoom ni ñuy def xale yi ni ñuy def lu dul dañuy jàpp ne ñii ñooy misaal yi gën a màgg ci loo xam ne boo delluwaatoon quarante ans ci gannaaw ñoo ñi yéesoon ci société benn jigéen bëggul woon a jur góor guy taxaw ci kanamu nit ñi di feccate woy loolee mbokk da ngay gis adduna bu yàqoo bay wëlbatiku fu ne la mën a jëme nit ñi ay yéen mbokk julit tey jii musiba boobu tax na ba ndaw ñu bëri soo leen laajoon mboolem woykat yi xam nañu leen ñan ca faam woy bu ñu yëkkati dañ ànd ak moom ba woy ba di teer bépp kaset bu war a génn ñi ngi koy xaar su génnee ñu jëkkante ko ci marché yi am naa koo ci taxawaloon laaj ko na ko waaw lan mooy maana laa ilaha illa allah dana jot bopp bi laa ah dëgg dëgg loolu xoomu ko de lu bari ci ñoom koo ci taxawaloon ne leen waaw julli moom lan mooy ay chartam xoomu ko lu bari ci ñoom koo ci taxawaloon tey waaw ndax xam nga nu ñuy taaya xoomu ko amma la nga xam ne mooy génn ca musique rap ya ak lu mu jaxasoo jaxasoo lay génn ca mbalaxkat ya ak lu mu jaxasoo jaxasoo mën nañ la ko répétel A ba Z ay yéen mbokk julit ngal la waay bu la sëriñ soosu yóbbaale ay yow mbokk julit ngal la waay xamal ne téeréb yàlla bi mooy référence julit sunna yonent bi alayhi salaam mooy référence julit bu ñu delloo ci téeréb yàlla ba suñu borom yàlla mi ngi ñuy wax ne yeyul ci benn julit góor wala jigéen yàlla ak yeneen tam tëral mbir ñoom ñu am leneen lu ñuy tànn lu dul loolu ku mooy yàlla ak yeneen ci bi day réer nga gën jaa màgg ci réer boo ñu delloo ci lan la yàlla ak yeneen ci bi wax suñu borom day nag ñuy wax ci suratu luqman am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy dem jënd ay puukani ci ay wax ngir di ci riiralaati ci yoonu yàlla loolu yóbbu na leen ba yoonu yàlla woowee dañ koy jàpp lu ñuy saboote bu ñu leen jàngalee aaya yi ñu rëy rëylu ku mel noonu bégal ko ci mbugal mu tar kenn ci sahaaba yi di abdullah ibn masud bokkoon ci ñi gën a mokkal téereb yàlla bi bokkoon ci ñi gën a taqoog yonente yàlla bi moom day moo ne maa ngi leen di waatal ci yàlla mi nga xam ne kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul moom maa ngi leen di waatal ci yàlla mi nga xam ne kenn yeewul ñu ko jaamu ku dul moom wax ko ñetti yoon ne leen loolu yàlla bi wax foofu mooy woy yii nga xam ne nit ñi dañ koy woy muy alxina bu àndeeg musique ya mu gën faa garaaw mbokk suñu yeneen ci salallahu alayhi wa sallam nee na balaa addunaa jukki de ñeenti yi sama xeet daañ ko taaral gannaaw ba ñu xamee ne araam na waaye daañ ko taaral ba daganal ko benn bi mooy njaaloo ak bari tey ni nit ñi taare la njaaloo ba nga xamee ni nii ñu bari garaawul fiñ ko am na ñoo xam ne lu leen neex la ñu takk ci ay soxna daañ araamal la nga daan daganal la nga xam ne mooy sowaa ci góor ca loolu dafa xaraam sàngara daañ ko wutal yeneen i tur ba daganal ko waaye daan daganal la nga xam ne mooy musique mbokk xadis boobu téere yi gën a wér ci lislaam moo ko génne te mooy ka nga xam ne nii mooy albuxaari suñu boroom wax ak suñu noonu cheytaani na ko cheytaani demal jaam yaa ngo koo mën a këf ci sa kaddu koo mën a këf ci say góor këf leen yóbbaale leen këf boogee nga xam ne da koy këf ci kaddu bokk na la nga xamee ne nii borom xam-xam yi wax nañ ko ci tafsir yi gën a kawe tafsiru Tabari ak Ibnu Kasir boo delloo ci ki nga xam ne nii mooy mujahid mi nga xam ne sëriñam mooy Abdullah ibnu Abbas ci yonent bi ñaanaloon yàlla xamal ko lan mooy tafsir xamal ko taxlil da doon wax ne kaddu googu muy musique mooy kaddu cheytaan mbokk jurit suñu borom tagg na jaamam yu baax yi ne ñoom day du ñu fekke ay caaxaan laa yashhaduna zuur loolu itamit boo demee ci mufassiruuna yi lan lañ ko firé mooy zuur boobee moom mooy lépp lu aju ci musique suñu borom ne buñ ko rombee dañuy romb romb ba tedd ca mooy kon jullit du musique du dem fu ñuy musique fu mu ko romb day dem ci rombin bu tedd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba doomam ja Ibrahima faatoo mu daal di tuur ay rangoon ki nga xam ne nii mooy Saad daal na ko ay yumi yàlla yónni ah da ngay jooy ci ko dee mu ne ko lii yërmande la mooy nga gis mbir mu metti sa rangoon tuuru xam nga lu yàlla bañ mooy kaddu goo xam ne kaddu gu woy la bu ñuy woy ci bànneex wala kaddu gu yuuxu bu ñuy yuuxu ci musiba kàddu yooyu yàlla subhanahu wa taala da leen rëbb loolu moo tax ba kii di abdullah ibnu omar mas na ànd ak benn taalibeem bu ñuy wax naafiya imaamu malik miñ naan ci mazhabam lañ topp bokk na sëriñam bi gënoon a mag mooy naafiya mi nga xam ne ci ibnu omar la jànge ibnu omar jànge ci yeneen ci yàlla bi salallahu alayhi wa sallam naafiya nee na day ànd ak ibnu omar booba maa ngi nekk ndaw nee na ñu romb benn dëkk mu dégg fa ay tëgg ibnu omar jël ay baaraamam roob ci biir noppam daa di dawal waruwaay yi bañ sori mu ne ma naasix ndax yaa ngi dégg ma ne ko déggatuma dara mu doog a dindi ay baaraamam daa di ne lii ma def day mas naa ànd ak yeneen bi alayhi salatu wasalaam moo def lii ma def ca mbokk yeneen bi kon fu mu masaan dégg ay musique mi way day taf ay noppam ba jóge ci ca foofee mu nekk lii bokk da ngay gis ne ay xadis la yu wér moo tax ba imaamu malik moom ay nit ñëw nañ ko ci moom laaj ko da ko waa malik loo xam ci musique mu ne leen ah ndax musique dëgg la ndax musique dana jegeel nit ki yàlla ñu ne ko ah déedéet mu ne wa maada baada alxaq illa dalal lan moo nekk gannaaw dëgg lu dul réer ñun day lañ xamoon ci ñun képp ko daan gis nga koy jëfee mooy dañoo gis na yow faasiq nga jullit bu faasiq rek lañ gis mu métti woo di way ak musique te bokk faasiq ci lislaam mooy koo xam ne kenn dootu nangu ay seedeel lu mu seede ak kat du ko nangu faasiq ci lislaam mooy koo xam ne bu deewoon tey kilifay dëkk ba wuruñoo dem ca julleekaay ba wuruñoo dem ca armenia même buñ koy ñaanal fa mu nekk ba nga xamee ne bu Sénégal yeewu woon ci musique tous ces musiciens là ku ci dee du am benn imam bu mag bu la julli du am benn kilifa buy ànd ci la nga xam ne muy sëm dëcc doonte ne ne Sénégal boo doon laaj tey at yii nga xam ne dañ koo passé ban dëkk moo gën a marqué Sénégal mooy dëgg benn ndawal musicien boo xamee ne nii ba mu faatoo fii ba jusqu'à deux cent kilomètres Sénégal gépp yëngu na loolee nekk loo xam ne mbokk lan moo ko waral mooy biñ demee ba xol yi réer xol yi yépp daal di fàtte la nga xam ne moom mooy sa kaddu borom ay yéen mbokk julit xam leen ne day borom xam-xam yi dëppoo nañu bokk na ci ki nga xam ne mooy ibne taymiya dana koy wax naasirdul albani mujj bi dana koy wax nee na boo delloo ci li ñuy tudde mazahibul arbaa demal ci ngërum abu xanifa ngërëm Shafi ngërëm Ahmad ngërëm imaamu Malik ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne ay woyu ki musique dafa xaram amul benn borom xam-xam bu ñuy sukkandikoo ci ay waxam ci lislaam bu lay nangul ne musique dafa doon loo xam ne ni lu dagan la ay yéen mbokk julit xam leen ne day dafa am loo xam ne nii munta nekk mukk ñaar yi bu ñu daje ci xol bëgg yàlla gu wér ak bëgg musique bu wér mënta daje ci xol la nga xamee ni nii mooy bëgg alquran bi wér ak bëgg musique bi wér du daje mukk ci xol xol ba musique di yëngal alquran du ko yëngal mukk xol ba alquran di yëngal musique du ko yëngal mukk lu waral loolu mooy alquran ma nga bawoo ca yàlla musique ma nga bawoo ca cheytaan looloo tax ñoom ñaar mënuñoo nekk abadan di bokk foo xam ne nii dañ fay daje fu ñu dajee rek kenn dana dàq moroomam loolu moo tax ba bokk julit xam leen ne musique day day woo siyaatiin yi ca place bañ koy defee musique day day dàq malaaka yi ca place ba nga xam ne moom lañ koy defee loolee kon muy wane ni ku nekk ci ñun yaa xool ana fan nga xam ne fa ngay war a nekk bépp kër goo xam ne dara du fa jollee lu dul alquranul karim dara du fa jollee lu dul zikrullah waatal na kër googu na nga fees dell ak malaka yërmaane waaye bépp kër boo xam ne musique baa ngay jolli waykat yaa ngay woy waatal na kër gaa nga fees dell ak chiatin mbokk musique bii mi ngi noonu nekk musiba boo xamee ni nii borom xam-xam yi dañuy wax ci xadis buñ ne sax yonent bi ko wax al ghina ruqyatu zina la nga xam ne mooy yóbbu ci njaaloo bokk na ca la nga xam ne mooy musique ca na am bokk ci nit laajal ñaata xale yu jigéen ñoo ëmb 31 décembre 24 décembre ci banlieue yi nga xam ne dañ koy organiser di tëgg di nekk di woy loolee lan la mën a jural doomu aadama yi loolu muy njaaloo ko gën a tasaaroo la ko gën a tasaare moom mooy la nga xamee ni nii moom mooy musique bu barboone loolu tax xoolal way yi ñuy way la ca ëpp mi ngi jëme ci wàllu mbëggeel la ca ëpp mi ngi jëme ci wàllu cofeel góoru jigéen lu waral loolu ndax xam nañ ne loolu mooy loolu musique su ko defee mbokk julit mu bokk la ci gën a garaawati encore ñoo xam ne kaddum yàlla boobu leen waroon na tëri musique moom la ñuy far jël di ko way koo xam ne musique am ma ngay way la ilaha illa allah ñii jël ay aaya alquran di ko way ñii am musique yoo xam ne dañ koy tuddee ay kaset génn ko fi tudde ko allah tudde ko ne dañuy di sant yàlla di way sëriñ si di way alquran mbokk loolu borom xam-xam yi dañ koo boole ci ñuy saboote kaddug yàlla ndax kaddug yàlla googu dafa waroon tere lii yow nga jël tere boobu di ko jëfandikoo te lañ la tere loolu dañ koo boole ci saboote kaddug yàlla te saboote kaddug yàlla kii féer la buy génn nit ki ci lislaam loolee ñu bokk bàyyi ci xel bu baax la ca lislaam génnee ak néew moom mooy bu dee ne bisu it dafa am wala bisu ceeb am yeneen bi alayhi salaatu wasalaam mayoon ne jigéen ñi ñu dóor am dënd moo xam ni lii bu ndaw la daan dóor ñu muu ko ñu daan ko tuddee dóor bokk la sax suñu sabar yi ak suñu tame yi ñu dóor ndënd ñi ngir ñu xam ne tey iit la wala ñu dóor ndënd ñi ngir ñu xam ne kat ak ciit ak na kër diw jigéen ñi rek ñoo ko daan def amma la nga xam ne mooy góor buy tëgg ndënd ca jamono yeneen bi wala góor buy tàcc ca jamono yeneen bi loolu kenn xamu ko woon loolu mbokk julit ñu bàyyi ci xel bu baax abu bakar ibn sadiq radiallahu anhu yaay aycha nee na mën nga ñëw sama kër ci bisu iid fekk fa sama ñaari xale yu ndaw ñi nekk di way dañuy way kii nga xamee ne nii moom mooy abu bakar daal di mer lool daa dina waaw kaddug seytaane ci kër yonent yàlla bi yonent bi alayhi salaam néewu ko aboubacar lii du kaddug seytaane de waaye dafa doon aboubacar bàyyi leen tey moom bisu it la te mooy bisu it daal ci maye lun dul maye bu dul it tey moom bisu it la loolu tax bàyyi leen donte ne ne la nga xamee ne nii borom xam-xam yi dañ koy wax ci loolee ibnu omar tafoon ay noppam loolu imaamu Malik doon wax naan ñi kay ñi woy ci ñun mooy faasiq yi mbokk jamono yonente bi way yu bon yi xew léegi xewul woon wax yu bon yi xew wax yu bokkaale yi xew xewul woon ana ban moo gën a bon li ngeen dégg jamono yi passé xarit général des mbalaxkat de Sénégal daal di ne ay yéen nit ñi kaay wax leen sama secret son secret mooy lan li nit ñi gis mooy dañ naan c'est un milliardaire adduna yépp xam nañ ko président yépp xam nañ ko ndaw yépp bëgg a mel na moom mu ne kaay ma wax leen sama secret man lu ma bëgg damay wax juróom ñaari yaasin diw rek mbir ma daal di sotti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk loolu gën a garaaw téeméer yoon musique boobu loolu gën a garaaw njaaloo moo gën a garaaw rey nit ndax loolu shirkul akbar la mooy jële nit ñi ci yaakaar yàlla yóbbu leen ci heure bu ñu jàqee yaakaar jaamu yàlla boo xam ne kenn xamul kañ la faatu woon ñu suul ko lii mbokk da ngay gis mooy danger yi nga xam ne nii am na ci musique boobee loolee nga xam ne am na tey jii da ngay gis ndaw ñi day doon lu jafe ci ñoom ñu xam lu cay danger kilifa yi nga xam ne ñoo jiite diina ji wax nañ ko kilifa yi jiite adduna bi ñu ngi leen wane ñu leen di musical ñuy fecc mbokk ndaw yooyee arab yi dañuy wax naan borom kër buy tëgg tama ndax dana mën a tere waa kër fecc déedéet te mbokk la nga xam ne mooy fecc googee ci góor loolee ab kàccoor bu xamul diine rek moo koy def mbokk islam prévoirul ak am fecc ci góor ak jigéen yépp waaye ak gën a ñaawati bu dee ne ci góor la bokk na lu ko borom xam-xam yi di waxee wala tamshi fil ardi marha bul dox ci kaw suuf di puukaréew la ci gën a bon mooy fecc moomee waaye tubaab bi indi na ko daganal ko ci ñun mooy benn góoru jàmbur mën na jël jabaru jàmbur nit ñëpp di seetaan mu taf ko ci dënnam bii joog moom ay minute nit ñi tàcc leen loo am lu war a loolu mooy tubaab bi moo daganal loolu loo xam ne suñu maam yi buñ ko gisoon àddina tukki su ko defee nga la waay yéen ndaw julit ñi ñu ngi leen di woo ci woote boo xamee ne nii xam leen ne mooy seen njëriñ ngalla waay laabal leen la nga xam ne mooy seen portable yi lépp loo xam ne ay vidéo la ci musique lépp loo xam ne ay audio la ci ci musique génne leen ko ci portable yi ngalla waay fexe leen remplacer loolu ci ay aaya alquran remplacer loolu ci xutba yi nga xam ne borom xam-xam yaa ngi xutba conférence yi nga xam ne ay toni ton la tey ci internet bi wallahi bu ngeen defee loolu texe bu rëy dana leen ñeel suñu borom nee na bakka na ngi nii qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha adduna bi yàlla moo ko moom soo bëggee am ak rida am kontaan ci am bànneexu xol da ngay jubóog sa borom lépp lu dox sa diggante zikrullah say alal mën na bari sa avancement mën na am sa liggéey sa njàng wallahi dund bu xat la la jëmee essayé leen essayé leen ko ngeen fexe jummoo yi musique bu bon boobu essayé leen toog ay jour bu ngeen déglu lu dul kàddu yàlla da ngeen yëg bànneex bu yàlla di remplacé ci seen biir xol suñu borom yàlla nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ku ragal yàlla bu may ko génn waaye wërsëgal ko fu mu ko foogewul wërsëg boobu la ci gën a màgg mooy xel mu dal moom lay defal falaax moom lay defal yaaru dënd moom lay defal yombal gum la yombalal lii mbokk bu ma koy wax ak ndaw ñi lan la waay yéen père de famille taxul may wax e waay yow père de famille yàlla wërsëgal la tey jii am nga kër wërsëgal la may la njaboot nga jël lay lan ngay sant yàlla jënd télévision tegal leen ñu leen di musical guddi di leen musical bëccëg jigéen ñu bon génne ay awra yu bon góor ñu ñàkk teggin nekk di leen yar guddi ak bëccëg loolee heure boo demee sa kanamu borom waajal lay ba ngay laay foofee heure boo naree dem bàmmeel bàyyeen jamat googu ak télévision yooyu xalaatal lan ngay moom la nekk sa kanamu borom loolee kon nañu delluwaat mbokk julit laabal suñu kër yi laabal suñu xol yi suñu ko defee day yàlla danañu may jànni adduna yàlla may ñu jànni alaxira yal na yàlla defal ñu tawfiq bi ma yuhibuhu wa yarda yal na yàlla defal ñu lëm bëgg ci gërëm ko yal na yàlla dox suñu diggante lépp loo xam ne day yàq suñu xol yi yal na yàlla soppaloo ñu ngëm taaral ko suñu biir xol yal na yàlla bañ ñooñu lépp luy kéefar ak génn topp ak lépp loolu fasuur ko yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu jàmm suñu réew yal na yàlla wàcce jàmm ci mboolem réewu julit ñi yal na yàlla rafetal suñu mucc te ñun ñëpp mu defal ñu àjjana ñu suñu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين